فسار كنار الخل لي بر ما ينبار أغاثني الأنا نمي الجيد من خلار وسار كنار الخل لي بر ما ينبار مدادي وأقلامي ولوي وكلكلي وجسمي لمن لي وجالس والوهبان منادي وأقلامي ولوحي وكالكليب وجسمي لمن لي وجالس والوهبان الحمد لله وعده والصلاة والسلام على من النبي بعده سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سبيل الدوان والتمكين mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen ziara di gisal ci nuyoo beeg ziar bi saaxibul fadila si Ahmadul Muntaxa di ñaan borom bi subhaana taala mu yàggal ko fi lool te wéral ko ah, ñuy jotle ay kàddu ci ndigalam bàyyi ko ci ndigalal sëñ Mouhamadou Ndiir di yëgal mboolem jullit yi ak mboolem taalibe yi bis boobu nga xam ne dañ ko war a baaxoo amal ci weer wi di ñaar fukki fan ci weeru barxlu ah, dëppoo le 13 mars. ñu ko yëgal mbokki jullit yëpp di ko yëgal mbokki taalibe yëpp ñu ngi fàttaliku suñu jàmbaar ja Cheikh Babacar Sadikh Ndir di ci woo it mbooleem euh, kilifay diine yi mbooleem kilifay diine ñu ngi leen ciy woo di ko yëgal mbooleem Cheikh Sëñ Tuubaa yi nga xamee ni ñoom lañ bokkal fee Bawal buñ ci tuddoo sëñ Aliou Diouf Lambaay rek ak sëñ Babacar Cargaan dana yóbbaale ñu des ñëpp ñoo leen fàttali bu baax di ci woo ahlu diine yëpp bis boobu nag sëñ bi ne mi ngi ciy soññ mbooleem taalibe yi waaye rawatina daayira yi nga xam ne ni ñu ngi nekk foofu ci Mbuso buñ ci tuddee daayira Matlaboul Fawzeyni ak daayira Wakana Haqqan rek day mel dana yóbbaale ñëpp ak soppe maam Serap Fall yi kon bis baa ngi noonu koy leen koy bàyyiloo xel bu baax a baax a baax di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu yóbbuñ te lépp loo xam ne nii rek baaxoo nañ ko daa def rek yàlla man loo ñu ko te yàlla nangul ñu ñu teewe ko te teewaat ko at yu bëree bëree bëri di barkeel Seexul Xadiim wasalaamaaleykum wa rahmatullah aousu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di ñaan ci barkeeb sëriñ bi saa borom yàggal sunu jotaay bii di ñaanal bu baax nag Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan saa borom yàggal ko fi te wéral ko barke sëñ Touba di ñaanal bu baax sëriñ Muudu Ndiir ibnu Cheikh Babacar Sadikh Ndiir di ñaan mu yàgg fi lool te wér ah, mu mel ni rek bu ngeen gisee jataay bi ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñooy waa daayira tubaab Moussa Ndiir fi xidmati seex Babacar Ndiir mu mel ni seen bis boobu ñu daan yëgle moo del si wat di bis bi ñuy fàttalikoo sunu jàmbaar ja muy Cheikh Babacar Sadikh Ndiir ah, ñu ngi ci woo jullit yëpp ak taalibe yëpp di ci woo bawal gépp nag bàyyi kenn ni ko seex Mahamadul Muntaxa waxee rek mboolem këri seex yi ak fu waay mën a nekk rek ñu ngi lay woo ca bis ba. bis ba nag euh, cosaan la mooy njàngam alxuraan mi nga xam ne moom lañ koy ubbee bu nu xëyee dana amal njàngam alxuraan ak durus xasida euh, bu nu demee ba ci ngoon gi ñu de amal benn cérémonie boo xam ne nii dina am waxtu 4 heures dañ koy amal incha allah ñu jay soñu ñëpp nag di soññaat bu baax nag waa daayira bi. ci seen taxawaay bi nga xam ne waxtu wu nekk ñu ngi koy amal ci liggéey bu sell bi ñuy liggéey di ko liggéeyale Cheikh Baba Ndiir muy bis boo xam ne euh, bisu fàttaliku la sunu jàmbaar ja euh, bis la boo xam ne it euh, képp koo xam ne yaa ngi bawal rawatina nga nekk biir Mbuso bu ñëwee kenn ku nekk war a xam ne bis booy del seeti na di bis boo xam ne it ah, nun ñi nga xam ne suñu xel gudd yëpp dañoo foog ne ci la aajooy bawal yëpp di fajoo ndax kenn ku nekk xam na ne jàmbaar ji yi nga xam ne tey moom la ñuy màggal dafa làmba ñaari garaat yoo xam ne ah, ci baaxu suñ borom rek la ko suñ borom defale ndax gannaaw ba nga xamee ne Mandir Faa boo joxoon joxoñan na ko joxoñam bu rëy boobee ca digganteem ak Serigne Touba mu ñëw àggale ñu fa Serigne Touba bis booba ñu xam ne moom la ñuy fàttaliku suñu jàmbaar joojee di soññ bu baax nag. waa daayira Touba Moussa Ndiir fi xidmati Cheikh Baba Ndiir di soñu baax waa daayira Touba Wakkaan xàqan Touba Moussa sanc ak mboolem koo xam ne yaa ngi ci biir dëkk ba muy góor muy jigéen ñu am taxawaay boo xam ne buñ daan amal rek bii moo koy raw ndax li ko waral moo di bis bi moo toll foofu ah nun nag bis bi mooy suñu lépp bis bi it ci la ñuy wutee li ñuy wut lépp ci lañ jàpp ne mën nañ ko cee amee kon képp koo xam ne suñu soppe nga wala suñu nga ñu ngi lay woo ci bis boobu yi bés ba nag taxawaay yi ñu ci fa yéene amal mooy nañ ko daan defe rek ci pësteef ak pas-pas ak fayda ju mat sëkk ndax dañuy woo àdduna bépp rawatina tundulaay mbaam yépp ñu du suñuy morom suñu moromi taalibe di suñu moromi sëriñ di ñu fekk si kon bu ñu ñëwee lañ fa xamee woon rek loolu lañ fa yéene incha allah ñu fekk ci nun mooy dundal bis ba ci anam yi mu soxla yépp mooy ci ak taalibe ak ab yar ak teggin te loolu rek mooy ca la liggéeyub sëriñ bi tënku ak taalibe rek ca lañ ko woote ca bëgg képp koo xam ne yaa ngi fay ñëw nga wuy sinu ci taalibe di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp waaye di fàttalikuwaat bu baax nag ne képp koo xam ne bii yaa ngi dégg suñu kàddu ñu ngi lay woo ca bis boobee ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp eh, di ñaan nag bis bi ñu yàgg koo teewee te waxtuun ci àggee rek ñëpp di ci gën a bàyyi xel ci xam ne bis bi moom ci suñu lépp nekk ci suñu ajo yëpp di fajoo ñu ngi ciy woo bàyyi ñu kenn di nuyu baax nag kilifa yi nga xam ne ñoom lañ bokkal jataay bi nga xam ne ñi fa war a jël kàddu bari na waaye bu mel ni dañuy am na coono dañuy doon gànt waaye bu ngeen gisee ñiy teew rek daanaka mën naa leen bu ñu fi teewee yóbbaale leen ñëpp ndax ñoo fi teewal suñuy kilifa kii ngeen gis ma làng ak moom doomi sëriñ mooy doomi xalifa bi muy sëriñ muy sëriñ ba muy sëriñ Mouhamadou Ndiir Lambaye kii mooy doomi sëriñ Moudou Mbacke Ndiir moom sëriñ Baba Ndiir kii mooy doomi Baye Abdou Ndiir moom sëriñ Baba Ndiir kee mooy doomi Baye Sëriñ Ndiir moom Serigne baaba Ndiir kële toog mooy Serigne ma Ndiir Ndiir moom Baye Touba Ndiir moom Serigne baaba moom Serigne Baba Ndiir kële toog ngeen bu ngeen dëggee buñ neen Mbuso ñett ñii rek ñaar ñii sax wala ñett ñoo tënk Mbuso muy ñi sant Ndiir ak ñi sant Kunta ak keneen ku ca fasoo kon su ngeen séenee fële ku ñuy wax Kunta moom it di doom ci Baye ci Baye Mouhamed Kunta di ñuy ñaan moom it mu yàgg fi loolu te wér di seen ci kenn ci taalibe yi ngeen koy gis muy Serigne Baba Faye mi ngi toog noonu moom it di taalibe boo xam ne ak taalibe ñëpp ràññee nañ ko ñëpp rafet nañ ko ci kër gi jëwriñu liggéey bi moom laa laaj nga nii euh, waaye juróom jeexan tàkk Serigne Baba Ndiir muy Touba Faye mii ak mbooloo mi ñu fi teew ñëpp mënu ñoo lim ñëpp waaye bu ñu leen présenté ñi mel na ni présenté leen ñi nga xam ne ñoo yore liggéey bi yëpp ñu ngi jégalu lu baax di wàcc foofu suñ kaddu euh, di ñaan nag euh, ñu àgg ci jàmm te lépp luñ fa ñaan yàlla ko saa borom def ñu ngi jégalu ñëpp na ci kaddu yi jërë ngeen jëf seytaana rajim bismillaahi rahmaani rahim barke Sëñ Baba Kunta barke Sëñ Baba Kunta barke Sëñ Baba Kunta bokki jullit yi fii teew yéen ñëpp kenn ku ne ñoo ngi lay nuyu ci sa tur ak ci sa sant ah, di ñaan jataay bi yal nañu ko teewee at yu baree baree bare di ñaan it sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Touba yi suñu yaakaar tey ëllëg yàlla guddal fanam yàlla yàggal ko fi di ñaan sëñ diir mi nga xam ne moo dox suñu digg ak sëñ Baaba tey muy suñu xalifa di sunu sëriñ yàlla guddal fanam te may ko wér sàmm ko sàmm njobootam nun daal noo ngi sant bu baax a baax a di woote itam ci bisub sëñ baaba bi ndax nu amuna du may sëñ baaba ndax man de mat sama waxtaan ak menn mag lambaay bay biram njaay mu ne dafa jóge lambaay ñëw di siyaara sëñ baaba ñëw ñu ne ko mi ngi ci tóokër bi mu dikk fekk ko muy lakk ab sébbu sawra wi xaw koo xorum bay biram njaay ne ko sëñ baaba dama xamut coono bi lu la ko jaral ndax waxuma ñuy seytaalu bi waaye réew mi koo fi liggéey loo mu liggéeyal la mu ne ko damaa liggéeyal sama borom ba mu xamal ma ne ma ku dégg sama tur bi da war a xetti lu ko yomal xiyaam kon dama war a liggéey kon lu tol noonu bu ko sëñ baaba mënu ko séddalee nun waa Mbuso nun danoo war a sant yàlla danoo war a gërëm yàlla waaw gone yi daayira bi nag man awma pay maa ngi leen di ñaanal yàlla mi nga xam ne moom lottut ci len yal na yàlla jàpp leen yal yàlla taxawu leen ndax lu dul lislaam ak diine ñoru leen bis bu sëñ baaba bii nag li ñu ci bëgg mooy ku ñëw na nga ànd ak yar ak teggin la ñuy tere fa loolu la ñuy tere fa Touba Moussa Ndiir ndax lu baax rek lanu bëgg aw yiw la ñu bëgg xéewal la ñu bëgg ñuy ñaan ci jëmi yàlla ak yonent bi yàlla nañu ko teewoo at yu baree baree baree bëri. mboolem nag ñi ne dëkkal ca làmbaay bàyyiwunu kenn bàyyiwunu góor bàyyiwunu jigéen. noo ngi woo ñëpp ci bisub sëñ baaba bi ndax amul lu may bisub sëñ baaba bi noo ngi ñaan ci jëm yàlla yonent bi kenn ku fa jóge yàlla na nga xettaliku ku fi àndaale ñàkk yàlla na nga am ku fa àndaale ràgg yàlla na nga wér ci daraja yonent barke sëñ baaba noo woo góor jee noo woo jigéen sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp wa temps bi dafa xaw a gàtt moo tax waaye bis bi daal noo ngi woote tamit amul lu may bisub sëñ baaba nan génn bàyyi gan ñi ci te nu génn fas yéene teral war a jàng ci alxuraan jàng leen war a jàng ci xasaayit ndax muusa kat loolu lañ leen xamee ci nekk ci loolu la ñuy dund waaw sant nañ bu baax a baax jërëjëf. waaleykum wa rahmatullah mbokki réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jox kenn ku nekk wàccuwaayam di leen balu àq bu baax di leen balu di leen balu àq di wax ne comme fi sëriñ baaba daaneele rek euh, bis la boo xam ne bis la boo xam ne képp ku ci ñëw ak aajo yàlla mën na koo saafara ndax fa borom bis bi toll ak digganteem ak boromam. waaye nag ñun woote bi ñu sant dañ cey jiital suñu xalifa muy cheikhul bekaay ibnu cheikhul bekaay ibnu cheikh Bunaama Kunta la tax ma jiital ko ca nag diggante Kunta ak Ndiir dañuy benn seq menn maam am fu nu jaar fu baree baree baree bari du neex a yaatal ci ab woote di ca teg rakam ja nekk ca dëkk bu mag ba ndàng muy sëriñ Mahfous Kunta di ci woo sëriñ Abdou Lahad Mbacke bu sëriñ Mbay Mbacke jaaxal bi toogeen doon dal yor fa daara macha allah moom itamit bokk ci keno yi nga xamante ne bii dañoo jëm bëgg a jëmbat làmbaay diine. sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom sëñ Fallou moom sëñ Basiiru ñu ngi koy woo ci bis bi bis bi di bisam mu tooge mbajaan yor fa daara aw ca tànk ya maamam awoon muy cërëb bawal gépp rawatina Mbadiane nga mu wàcce ñu ngi koy woo ci bis bi di ko yëgal di ko wax ne bis bi sa bis la maam Thierno Mbacke daaru mbaw yor fa daara njeng ñu ngi koy yëgal moom it bis bi di ko yëgal doomi daara yëpp comme ni ko Cheikh Mouhamadul Bachir waxe waaye ginnaaw bu loolu jàllee dañuy daal di woo kilifay aada yi nga xamante ne bii ñoom lañ seqal réew mi te mënuñoo dem bàyyi leen ñoom it mënuñoo dem bàyyi ñu di ci jiital président de la république Macky sàll ak soxnaam soxna Marème Faye Sall waaye di ca teg euh, sous bu làmbaay Cheikh Dieng di ca teg euh, monsieur le maire docteur Pam Ndiaye di ca teg euh, Sidi Diouf soxna Aïda Mbodj Bambay ñu ngi koy woo ci bis bi waaye ñu ngi woo Pape Mor Ngom maire de Ngogam ñi ngi woo Pape Diouf ministre de conseil waaye ñi ngi woo Cheikh Dakar ancien maire de Lambaye moom it ñu ngi koy woo ñu ngi woo yaa xooba njaay mexe ku ne xam ne moom it yàgg nañoo ànd ak moom bis bi mu doon jàmbaar joo xamante ne bii jenn jàmbaar la joo xam ne dafa takkoon laxasaayam ànd ak ñun fas yéenee dundal bis bi ñu ngi koy woo ci bis bi moom di ci woo mbooleem responsable politique yi nga xamante ne bii ñoo nekk làmbaay yëpp bàyyi ñu madunloo jama càdda bàyyi ñu musa jenn ak mboole seen ñi nga xamante ne bii rek ñoom leen seqal lambaay nga xamante ne bii dañoo féete ci wàllu mbirum aada ñi ñu ngi woon ñëpp bàyyiwuñu kenn parce que bis la boo xamante ne bii bawal gépp ko seq réew mépp ko seq képp népp nu ci waay demee rek noonu nga cay toll. kon nag bis la boo xamante ne bii bis la bu ëmb lu bëree bëree bëri képp koo yéene yiw yéene ko jàmm yéene ko xéewal rek woo ko ca képp népp nu ca waay ñëwee nag yàlla mën na caa dëxañ sa lépp ba sun borom àggale say yéene say mébét ca biir làmbaay kon ñu ngi leen koy fàttali di leen ci woo di leen wax ne bis bi seen bisa bis bi moom borom alxuraan la mos a jiital ci léppam ndax it bi ko sëñ Tuubaa di e, wooyit ci njàngaleem alxuraan la ko fekk kon lépp lu ko waay di defal jiital ci alxuraan mel na ne yaa ngi aw ca bëgg-bëgg ka ngay woote jëmale ca moom teg ci salaatu ala nabi teg ci xasida yi xasidaay sëñ Tuubaa yi nag mi ngi tënku ci diggante salaatu ala nabi astaghfirullah ak jàngale fiqa xam-xam wasalaamullahi aleykum wa rahmatullah auzu billahi samii ñu ngi nuyu mbokku taalib bi mbokku jullit di kenn ko ci ne si turam ak santam di wax ci turu xalifa bi ci ndigalam ci ndigalal mboolem ñi nga xam ne ñoom dañ ko bokkar rek lañuy waxee ci kàddu yi di bi jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Cheikh Mouhamadou mu yàgg fi tànd ak wér ay ak mboolem. ñi mu jaboote yëpp di sant Cheikh Mouhamadou Ndiir xalifa si Ababacar Ndiir ak mboolem rakkam yi ak mboolem ñi jaboote yëpp di wax ne ci bis bi rek lan ñuy fas yéenee wax muy woote gi nga xam ne danga ko woote muy wooteeg sant yàlla ak jaamu yàlla waaye sant si Ababacar Sadikh Ndiir mi nga xam ne mu waral woote bi euh, ci turu xalif bi nag ñi ngi bi nuyoo ñëpp nuyu jullit yi ñi ngi wax ne màggalug Mbuso googu ñu fas yéenee def ci ñaar fukki fan ci weeru baraxlu di weeru sexbaan tombeek le 13 ci weeru tubaab ci lañ ku fas yéenee màggal màggal gi nag mooy fàttali mboolem njaboot ak Cheikh Ababacar Sadikh Ndiir gi nga xam ne Cheikh Ababacar Sadikh mi nga xam ne moom la sëriñ bi woote woon Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba ba woote boobu mu wuyu woon ba ñëw taxawal samp lii lislaam ci lépp lu mu bokkal bawal rawatina làmbaay googu woote gi nag euh, woote annuel la di juróom fukki at ak juróom ñett di cinquante huit ans ban ko dalee def ak léegi kon xaw na am ab xaw na diire ñuy ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ci jàmm ak salaam waaye ginnaaw loolu ñu ngi woo mbooleem koo xam ni sëriñ bi bokk naa ak moom sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul waaye di ci woote li nga xam ne mooy sunu ñetti jàmbaar ya nga xam ne ñoom ñoo bokkoon ak Cheikh Ababacar Sadikh Ndir liggéeyu lislaam boobu ci làmbaay muy sëñ Aliou làmbaay sëriñ Babacar Thiergane sëriñ Mor Maane kon ñetti jàmbaar yooyu nga xam ne ñoom la sëriñ bi fekkoon foofu di Cheikh Ababacar Sadikh Ndir ànd ko ñoom doon liggéeyu liggéeyu lislaam ngir samp lislaam ci tund bawal woowu na làmbaay ñi ngi ci woo mbooleem koo xamante ni nag ñooy seen njaboot waaye ñooy seen taalibe ñooy seen i xarit ñooy seen i soppe sëriñ Muudu Mouhamadou Ndiir mi nga xam ne mooy xalifa ab Cheikh Ababacar Sadikh Ndiir mi ngi ci woo képp koo xam ne moom la bokk sëriñ Touba waaye na nag tund bawal yi nga xam ne bépp seex bu ci nee rek bàyyi ñu kenn ñu ngi woo kenn ku ne ci turam ak santam di wax ne bis bi bisu jàng alquraanul karim la ñu ngi ci woo daara yi nga xam ne ñoom lañ ko bokkal ku mel ni jokkantiin jama càdd mbër ak mbooleem yeneen daara yi nga xam ne tudd leen waaye ñoo ko bokk ñu ngi ciy woo ñëpp lay lay solal bis ba nag mooy lan cee jiital mooy jàng alquraanul karim ak jàng xasida ak sikar loolu lan fay woote di ci woote ci yar ak teggiin te ñaan yàlla képp ku dib soppe ku dib yaakaar ku bëgg sëriñ bi ñu ngi la ciy woo di woote ci bis boobu daal ne bis la boo xamante ne bii bisu sant yàlla la bisu jaamu yàlla la ñu ngi ñaan yàlla képp ku ci teew yal na yàlla def sa faj ak aaju biir ak biti saayir wa baatin di sant uh, waa daayira bi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu organisation bi di Touba daayiratu Mbuusa Ndiir fi xidmati si Ababacar Sadikh Ndiir waaye di ci woote uh, waa daayiratu Matlabu Fawseyni waaye di ci woote daayira wa Kaana Aqan bu bu sa sanc ñu ci woo ñëpp di ci wax ne bis bi daal sunu bis la ñi ngi ñaan yàlla yal nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm te ànd ak xiiwal ànd ba lépp lu ci waay yéene yàlla sunu borom jàppandal ko bi jaay nabi Moustapha sallallahu alayhi wasallam. jërëjëf Cheikh Basirou ci kàddu yu rafet yooyu kon mbokk yi bis baa ngi noonu ñu bàyyi ko xel bu baax rek dëppoo euh, le 13 mars di ñaar fukki fan ci weeru saxbaan wii bis boobu nag programme bi nii lay tëddee bu ñu xëyee danañ amal am njàngu alxuraan ci njiital sëñ Bay Ndiir ñu ngi koy fàttaliwaat mbooleem yi baaxoo di taxawee liggéey boobu noonu waxtu bu ñu demee ba ginaaw tisbaar it danañ bernde séddale bernde yi bu ko defee incha allah bu ñu demee ba ginnaaw julli takkusaan bu noppi danañ amal cérémonie officielle ngir waxtaanee waat lu jëm ci wàllum dëkk ba waaye waxtaanee waat lu jëm ci liggéey bi nga xam ne dañ koo seq te ko taxawee. bu ñu demee ba guddi it programme nee demee kuréelu wakaan xaqan danañ fa jàng xasida ginnaaw bu ñu jàllee ñoom it loolu foo seen ñoom it danañ fa jàng ginnaaw bu loolu jàllee suñu xaalim gi mooy jeexal guddi gi kon nag ñu ngi ci fàttaliwaat ñëpp rek ne ñu gën a góorgóorluwaat bu baax ci taxawalaat li nga xamee ne moom la ñu bi digal ñu jëmmal ko ñu ngi fàttaliwaat bu baax it suñu Abdul Hakim Mbàkke mi nga xam ne nii moom it wax dëgg yàlla sunu wéeruwaay la di sunu wéttal te Cheikh Mamadou Moussa Bassirou teyoon ko fa ñu ngi ko yégal bis bu baax a baax a baax te it di sant ci li ñu dëgmal ak li ñu weesu ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne baaxoon na ko taxawal kon mbokk yi bis baa noonu ñu bàyyi xel bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh